doit deux libertés définitives. Et maintenant qui me doit une troisième liberté définitive. Et à chaque seconde, nous, nous il a un élément nouveau. Cette justice-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance Wa APR, Wa Bok Yakar, comment est-ce qu'ils peuvent se regarder, nous regarder les yeux dans les yeux Il faut faire confiance à cette justice. Ah, mandat de dépôt pour une conférence de presse savoir xam ne fekkewuma ou waaw bii pas mom waaw les motifs les les uns les plus saugrenus que les autres donc justice néocoloniale bi faut le dire, jeex suis motax nous tamit ñu doon fas ñu doon wax sénégalais Si bu len dégg union des magistrats du Sénégal ou UMS di xex ngeen tok ne pat union des magistrats du Sénégal bu ñuy pour une justice indépendante ñun sax ñoo leen war a ñun Sénégal dañoo war a bàyyi jikkoo que tant que laaluñu sama calife général tant que laaluñu sama wasso, tant que laaluñu sama monseigneur xaw ma sama évêque tant que laaluñu sama salaire tant que laaluñu sama dëkk du nous yëngatu du ma bouger du dëgg du yoon moom la ñuy def ñun ñëpp moo ça fait ay ay at président Macky Sall dit mettre sur écoute les citoyens sénégalais mais plutôt écouter le peuple sénégalais arrêtez de le mettre sur écoute et écoutez le peuple sénégalais pour le Sénégal ci ndol ce n'est pas en mettant les citoyens sénégalais sur écoute mais c'est en écoutant les profondes aspirations du peuple sénégalais li di feeñ li di xeeñ moi indépendance li di xeeñ mooy souveraineté li di xeeñ mooy moom sa réew moom sa bopp loolu mooy wax ci loolu moo tax nag ñi fi nekk ànd ak ñi nga xam ne yilif ci àddina bi muy France Union européenne ak ñoom seen ne duñu Sénégal moom boppam ndaxte Sénégal bu moomee boppam Gambie moom Mali moom boppam Togo Mali. Euh, euh, mais Côte d'Ivoire mon bopam. Nous, li Sénégal nous la vitrine politique de la France-Afrique Côte d'Ivoire rester la vitrine économique de la France-Afrique li bëgg bi li la division internationale du travail bi nga nous ne nous tax nous, di nous Nous di golo africain Baboun mais quarante 40 Baboun FMI Baboun Banque mondiale Baboun Union européenne ñu jëriñoo ko ñun ñu des ci ndool dégg ngeen ma bu baax nag li ma wax dama ne Baboun CAC 40 waxuma Baboun askanu France de Baboun CAC 40 CAC 40 mooy boroom doole les capitalistes français yi nga xam ne sax dañuy noot askanu France di ñu noot mosu leen ñu dégg. ñu xalab askanu France musu len ñu dégg ñu xalab askanu États-Unis musu len ñu dégg ñu xalab ñu xalab askanu Espagne wala Canada par contre nous sommes anti-impérialistes et nous l'assumons motax ñu waxone et on continue à le dire pour la souveraineté monétaire France dégage au lieu ñu wax ci ndeyu wax ci comment est-ce qu'on sort de la pauvreté et du sous et du sous-développement naka lañuy fexé ba mom suñu bop naka lañuy fexé ba saytu ci yenen anam Sénégal ak Afrique dañu bëgg a ci débat waaw Karim wad moo def lii moo sàcc xaalis bi Khalifa Sall moo sàcc dugub ak ceeb Barthélemy Diaz moo rey depuis 2011 ñu ngi koy topp ci affaire Assane Diouf aussi non c'est ça. Ndiaga Diouf depuis 2011 mënul jeex c'est un scandale moo tax ñun sax war nañ xoolaat suñu bopp tant que ñu ngi toppee Barthélemy Diaz loolu mais ça veut dire que ñun ñëpp on est en danger parce que manipulation judiciaire la di justice ngir Barthélemy Diaz bu mais convoquer tribunal pour Ndiaga Diouf waaw c'est Ousmane Sonko c'est un violeur pour rek débat yi nga armée française war na fa nek ndax war nañ fa France ban armée étrangère ngeen gis États-Unis ban armée étrangère ngeen gis Ah? ndax say këru liggéeykaay yi ëpp solo war nga ko jaay ay doxandem Sonatel ndox bi port bi aéroport bi lu ñu moom tous moo tax croissance bi foofu la jëm loolu mooy débat bi ngir daw débat boobu nag diw sàcc la diw assassin la diw violeur la fi ñu jëm nag mooy ñii ay terroriste lañu dama ne terroriste yi mooy Aliou Dembourou Sow yi nga xam ne nëbbatuwuñu nee nañ jaasi yaa ngi fii terroriste yi mooy Malick Sall terroriste yi mooy ñiy jëfandikoo doole bi askan wi dénk pour terroriser askan wi